ngir bépp jumtukaayu bureau. yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wax ju baax ak seede su rafet bu doon yëkkati ab néew kon démb Jules François Bertrand Bocandé nam daan dugge ci stade ya na lay génne ca Demba Diop ka ñëpp bokk di bokk te mu dem ba fi ñëpp ñëpp. sargal observateur xëy ko tàggu adieu Jules gaynde gu mag nelaw na libération nañu te yeewaat ba mukk jàmbaar ju bëggoon am réewum dem na fii la bokkaande tëdd la Sénégal ni ko bàyyi bàyyi esamay léewtoo nañu gaynde ga ma ngay noppalo match football minutes la boo ca boole prolongation ya muy 120 minutes le quotidien nañu loolu lépp la Sénégal boole footballal ko Jules François Bertrand Bokandé démb ca Demba Diop direct info ne ko fanfoo wàcc nga mën ngaa dajale ab nation ci njiital njiit réew mi njaboot geek xarit yeeg am di jàmm yeeg ñi nga xam ne football kat la ñu woon ak ñiy football ba léegi taskatu xabaar yeeg soppe yeeg ñi safoo Casa Sport ñëpp ña nga daje woon ci stade Demba Diop ngir delloo njukkal Jules François Bocandé Walfadjri Grand Place ne ñu ca ñooñee ñaara nga ca mooy Aladji Ousseynou Diouf ak Ibrahima Khalilou Fadiga démb ñoo jooyloo stade Demba Diop ci xët mu njëkk Walfadjri sport àndandoy Bokande yawoon di ñoom Cheikh Seck Tassirou Diallo Moussa Ndaw ak mboolem ñi footballandoo ak Jules François Bokande ànd ak njabootug bokkande gi ñi ngi jàppoo néew bi gàddu kees gi di ko dugal ci corbillard bi journal bi tënk wax ji ci ñetti kàddu un peuple un bokk une fois une fois encore jàmmi Casamance tey la gën a yitteel doomi dëkk ba l'observateur Pierre Goudiaby Atepa di kenn ku bokk ci collectif gi ëmb cadre Casamance yi démb ca ndaje ma ba mu jëlee kàddu ga di wax wax na fa lu tooyal xol yu bëri ndax ba mu waxee ci bokkande ba nuppi ca la wëlbatikoo ci fippi Casamance yi fàttali leen démb ne leen fukki at ca gannaaw ba ma ñàkkee sama jur bu jigéen Abbé Diamacoune Senghor dikkoon na jaale si ma ko ànd ak délégation la ñu fa doon waxtaane moo di jàmmi Casamance tey ji Abbé Diamecoune Senghor xeex na ngir lu dellu si jàmm ca Casamance ba génn àdduna tey bu dee amit du ko fekkee Jules François Bocandé mi tëdd tey ma tiim ko lu mu mën a am ci àdduna jàmm ca moo ko ko gënal tey ji bu dee am du ko fekkee Atepa ne César Atoute Badiate ak Salif Sadio ndax da ngeen a bëgg a xaar ba ñun ñëpp ñu faatu ngeen soog a nangoo wér ngànnaay nangoo bokk genn wërngalu taabar gi ngir waxtaane lu jàmmal Casamance Pierre Goudiaby Atepa ni fippi Casamance yi wéer leen ngànnaay yi ngir jëmm ju ñu fi dajale tey démb Cheikh kaso ba ca Thiès génnoon na la Sénégal nañu wopp moo tax ñu jëlee ko ci kaso ba moom Cheikh Béthio yóbbu ko l'hôpital ngir mu gise fa ak cardiologue ba Walfadjri Grand Place nañu médecin ya ba ñu ko seetee la xamle moo di kii di Cheikh Béthio Thioune ak tolluwaayam ci wér-gu-yaram amul lenn lu ci jara tiit lépp a ngi jaar ci yoon enquête dina di laaj ndax crise ba ñuy wax ne moo dal Cheikh Béthio Thioune ba tax ñu génne woon ko ca kaso ba yóbbu l'hôpital ndax crise boobee lu am la kii bëgg am ab diir moo di la Sénégal nañu moom Barthélémy Dias ak kaso bi ne ci lu yàggatul dara danañu amee liberté provisoire provisoire boo ko déggee mooy lu dul sax li am démb ca xar yàlla mi ngi bëgg a sax ci réew mi ubbil wal fajiri benn tailleur bu góor bu am ñaar fukki at ak ñaar moo doon jéggi tali bi gis benn maire bu tarxis bay waaj a daanu xale bu góor bi di tailleur bi dem jàppale maire ba yëkkati ko maire bi jóg sant ko gërëm ko xale bu góor ba bàyyi ko fa dox ñaari jéego seetlu ne tubay jë wéet na lool maanaam la nekkoon ca biir tubay jë nekkatu ca xale bu góor bi dëpp dikk takkal maire bi ay jululi nekko li newoon sama tubay dem na te yaa li jàpp kaw jàpp suuf gars yi jël maire ba ne dañ koy yóbbu police ña àndoon ak moom ne ba ñuy waaj a ca police ba ca la gis maire ba muy tari ay saar ba ñu demee ba yegg police ñuy àtte yëf ca la xale bu góor ba soog a làmbaat tubay ja fekkaat fa la fa newoon